Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse. jàngeen jëf campagne yu Macky Sall moom la yéene yu bëri xëyee tey réew mi quotidien dikk na ci kàddu yi nga xamante ne njiitu réew ma woon yëkkati na ko lu jëm ci dellu siyam ci biir réew mi ba ci sax kaaw Amadou Ba dil ba ñu doon lamlamee digganteem ak waa PASTEP mu mel ni moom njiital coalition takku wàllu indi na ci ay leerlu yéene bi di ñu xamal ni dafa mel ni moom Macky Sall ci boppam noppeegul ngir dellu si ci biir réew réew mi waaye daal nee na taxaw na ngir fexe ba ñi nga xamante ne ñoo ngànk nguur gi jamono ji daal di koy ñàkk ba fi ñu toll nag yéene kaay groupe réew mi network bi mu ñuy xamal ni campagne électorale bi jàppale ni Macky Sall moom du ci teewu le quotidien li mu jàpp mooy Macky Sall ci boppam ñi mu àndal dafa mel ni ku leen nax ndax du ñëw ci li nga xamante ne moom mooy campagne bi kàddu yi mu yëkkati ci biir yéene bi mooy dellu siyam ci Sénégal moom jotagul fu mu toll ni kàdduk Macky Sall ba tey ci beneen yéene kaay 24 heures moo waral ñu daal di samp coalition bi nga xamante ne moom mooy takku wàllu mooy indi ay jubbanti ci li nga xamante ne ñiy jot nguur gi yees def nañ ko ni ay ndëngte kàddu yi Macky Sall di ko yëkkatee ci biti réew fekk ci biir réew mi moom rawatina ca goxam ba mu fekk baax Ousmane Sonko ma nga fa woon démb di wane boppam yéenekaay bi di yor yor bi duñu xamal ni moom premier ministre ni ki démb ma nga woon ca Fatick démb di faram-fàcce vision Sénégal 2050 jamono jooje Barthélémy Diaz moom ma nga ci njiital sàmm sa kàddu gisee ne démb ak monseigneur Benjamin Ndiaye mi jiite jàngo bi naka noone ma Madani Tall ba ci Serigne Maodo Sy Dabakh source a di ñu yëgal ni ba mu waxtaanee kilifa yi ba noppi moom maire bu ndakaaru dafa mel ni ku ànd ak confiance dëgg ndaxam confiance Barth bi lu dëggu la l'évidence moom li mu jàngat mooy ci ndorteelub campagne bi ak léegi moom doomu Jean Paul Dias bi ba léegi kenn xàmmeew ko ci jamono ji nga xamante ne mel ni moo ci buur di bummi campagne bi yéenekaay bi gis mooy ba léegi dafay seddal Amadou Ba mi jiite coalition jàmm ak njëriñ ci Vox Populi mu mel ni kuy tontu premier ministre Ousmane Sonko ndax nee na moom njiital Pastef fak ñi mu àndal wax nañu ba jot ci réew mi te daañu woy di wax ba daal di koy yàq muy gis-gisu amadu Ba mi nga xamante ne suñu naataango yu l'Observateur wax nañu ci ay ambition politique am yéenekaay groupe Futur Média bi di wax ci li nga xamante ne moo jëm ci ay pexe politique yi nga xamante ne dañoo jàpp ni moom la tàmmu lajj la jëm li ko waral yéenekaay bi ne du dara lu dul menace Ousmane Sonko bi nekk ci kanamam mu war a jàkkaarloowaat ak moom ci élection législative yi législative yi boo moytul lim ñuy jural mooy assemblée bi nga xamante ne ñëpp ci gën a gis seen bopp enquête mi xëy def enquête am ci investiture yi gis na ni bile yoon daal bëri na ci ñi nga xamante ne dañuy dund ak way laagu ñu daal di leen dugal ci liste yi bokk na ci listu fa defar sa gox yi tamit investir nañ ci fanweer ci ay candidat ci leer li ñu nemmeeku ci investiture moo tax nag kii nga xamante ne moo jiite fédération ouest africaine des personnes handicapées di Yatma Fall gis ni jéego bu am solo la ci li nga xamante ne moom lañu ñu duppee inclusivité ndax ñëpp mën a gis seen bopp ci biir assemblée Bougane Gueye Dany mi nekk ci biir prison bu Tambacounda Sud Quotidien mu ngi ñuy xamal ni tey jii kon lañu koy àtte ci flagrant délit yéene kay groupe Sud Communication bi gis ni bëccëg bu tey daal ci la lépp war leer ngir njiital mouvement gëm sa bopp mi na ci coalition sàmm ñu duutoon ko mandat de dépôt gannaaw refus d'obtempérer rébellion ak kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci ay takk der Bougane ca prison Walf Quotidien di ñu xamal ni dalal na ki nga xamante ne moom mooy njiital groupe Walfadjri ci boppam moom maître Cheikh Niass di sàkku nag ñu daal bàyyi ki nga xamante ne moom mooy opposant bi opposant bi ñu war a atte niki tey ji l'observateur dikk na ci di xam ne ni kon moom Bougane lu koy xaar ni risque bëri na lool ci atte bi nga xamante ne tey ko war a amal foofe ca diwaanub Tambacounda ca football yéene kaay groupe Walfadjri bi mu ngi xamal ni kon am na ci malaise dëgg ngir ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci administration bi ñoom ñooñee ñooy ŋàññ anam yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee ba ci sax ay privilèges yi nga xamante ne fédération bi daf leen koy xañ moo ne de ñi bokk ci comité exécutif bi at mu yàlla sàkk daañu jot lu ëpp ñetti millions ak genn wàlla ci suñu koppar ñoom ña fay liggéey nag daanaka ay moccaat rek la ñuy jot te seen retraite moom mu waxaale ñu ko sax Rewmi Sport mi wax ci éliminatoire CAN 2025 yi ak jongante bi nga sunu gaynde yi war nañ ko sekk ak waa Burkina Faso boobu la jongante nag jàppaleen ni ca Bamako lay doon mu war a nekk xëccoo dëgg ngir kan mooy jiite poule bi nga xamante ne kon ñaar ñi ñëpp am nañu seen qualification ba noppi record muy wax ci League Cup ci Angleterre ak choc bi nga xamante ne moo war a dox diggante Tottenham bu Pape Matar Sarr ak Manchester City yéenekaay bi di ñu xamal ni moom doomu sénégalais bi ñu ngi koy xaar bu baax a baax ci bile jongante jàngeen jëf Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñu leen doon may seen de presse